baax a baax. asalaamaaleykum Fatima maaleykum salaam wa rahmatulah waaw bi rafet na. merci beaucoup ma chérie. xamoon ne di defar ba mu baax. bett ñu woon ci yow. gis nga damay damay jàppale altruiste yi rek. <laughs> non man de sax loxo laa bëggoon gis loxo yi gis loxo yi rek laa bëggoon gis. si dara loxo yi de ba <laughs> ci dara dama ko simple nii rek xam nga gis nga. macha allah damay bañ ma ëpp rek. da ngay bañ mu ëpp. ma ne ko damay bañ mu euh, ñu bëggoon dugg tuuti. Euh, waaw yegg si bëggoon tuuti indi suñu contribution. waaw yegg si waaw. Fatima di di wax ne premièrement ñun dañ lay ñaanal. dañ lay ñaanal gudd fan ak wér gu yaram. di la ko ñaanal sa njaboot di ko ñaanal mbooloo ma jëkk. Euh, di wax ne xam nga nga dund ba am âge bi nga toll. te amuloo mhm. développement personnel am na ñoo xamante ne xamuñu ko. like man sama mhm. genre xaw ma ko woon. non développement personnel indi ci suñu dund loo xamante ne. bu ñu ko mhm. xamoon déedéet bi mën naa am erreur yi ñekk yëpp du si duñ si nekk. Mhm. am na lu bari lu ñu mënoon a éviter suñu si suñu dund bu ñu amoon développement mhm. personnel avant. sa yaay dina la yar ba nga màgg nga yaakaar ne yar nañ la ci yar boo xamante ne nii wallaay da ngaa war a xam lépp fekk ne yow xamoo dara. man développement personnel moom a xam loo euh, diggante. ok wooteel ci whatsapp bi mooy tànn tuuti. kooku. ah Roqeya Roqeya noo def Roqeya Fall <laughs> <laughs> ziar la <laughs> ah macha allah gëj la dégg. Ah, ñu ngi lay ziar di la nuyu di noo def. delloo ñu ngi lay fay di la fay sa jàmm. Ah, ah, développement personnel damay wax ne bi ñu bi ñu jàngal. Mm-hmm. damay wax ne ñaar ñi rek lañ si gis. Mm-hmm. ñi rek. Mm-hmm. parce que man damay wax bi may bi may def euh, benn yoon laa formation muy muy année passée. bi ma bi ma nekk si formation bi dafa fekk ma nekk si problème yu tar. mais grâce à toi yow yaa tax ma surmonter kii boobu. problème bi sant yàlla waaw mhm. ba bi ma def moom ay jàppale. sant yàlla moom jàppale dafa bëree bëri bëri bëri bëri bëri. Mhm. ba nga xam ne ñu bëri sax dañ may wax ne. Mhm. problème yow yi nga nekk am problème kenn du ko xam. loolu yëpp euh, si euh, développement bi ma def. moom a moom moo ma dimbali. moo ma dimbali. sant yàlla. nga xam ne waa lépp lu am rek nga xam ne yàlla moo moo moo sa destin la. Mm-hmm. sa destin la nga bañ am benn ragal ragal. Mm-hmm. ndax lépp loo ragal rek loo ragal ak looy say peur comme ni ñu ko waxee rek. say mm-hmm. peur moom lay attiré te yow doo ko xam. doo ko xam. waaw loolu doo ko xam. Mm-hmm. léegi boo boo génnee loolu yëpp nga xam ne nga dindi say kër gëm sa bopp. Mm-hmm. xam nga am confiance en soi. Mm-hmm. yooyu yëpp da lay jàppale ba nga xam ne yow li ngay li ngay tudd yëpp da nga koy surmonter. waaw en éducation des enfants. Euh, yëpp sama am naa sama goro nga. bu ko doon buy saa yu gisee dafa dem ba xam sa tur buy gis ma see wax mu ne ma Maada dafa di accouché parce que je suis am na. Maada. ndeysaan. aywa ndeysaan. éducation bi ba lay yokk. ndeysaan. dégg nga lii. sant yàlla. maa ngi mm-hmm. maa ngi lay maa ngi lay maa ngi jéem a def effort. Mm-hmm. ci euh, leçon yi ñuy jox. Mm-hmm. yëpp di pour pour pour que pour que si euh, jëm sama kër jëm sama ay kàttan. sant yàlla pour pour euh, éducation bi waaw. sant yàlla vraiment sànq ba léegi maa ngi dugg a dugg parce que dama kontaan. macha allah dama kontaan vraiment pour wax la di nga remercier. di nga remercier vraiment si formation bi. sant yàlla waaw. di wax waaw ku ko mën a def rek.

waaw dama ne woon naa dugg témoigner. en tout cas rafet na <laughs> waaw dugg témoigner waaw rafet na merci beaucoup kontaan nañu lool rafet ñu ngi lay jaajëfal. merci beaucoup <laughs> <laughs> ko yegsi Fatima yegsi whatsapp bi daa mel ni moo tane tiktok bi image bi tax fii kontaan ci li nga xamante ne jàngal ko ñu ko. Mm-hmm. Euh, muy développement personnel. Mm-hmm. ma ci développement personnel bi si laa amee waatee sama sama amuru waajur. sant macha allah parce que yaakaar ne sa waajur da daa bañ. Mm-hmm. mais bi ma la dégloo nga wax ni ñu war a doxalee ak ku am ay blessure. ma xool sama waajur jàngat ko jege ko di ko déglu. xam ne kii dafa am ay blessures yoo xam ne moom la ma transmettre. Hmm. blessure yooyu aussi man ma jàngis si lu baree baree bëri hmm. ba xam ne dootuma ko loolu ma jàngee si sama hmm. yaay du ma ko transmettre sama njaboot mooy xam ne cercle bi dafay dagg te fii lay daggee macha allah waxtaan ak moom moo waral mu xamal ma ay blessure mu jógee yëpp yëpp yëpp allahu akbar yëpp donc ma gën a am amour. sama yaay gën ko téye gën ko seere. macha allah xamante allah. ni may waxee ak yow nii sama yaay moom sama biir kër. oh sant yàlla lool. ñoo la gën a kontaan développement personnel moo waral lii. kooku bu ma jooyloo nag ba ma jooyloo di nga fay di nga fay amande metti nag waaw ah, ah, ndax man ah. vraiment. nag vraiment vraiment. sant yàlla sant def si développement personnel li nga dugal si sama bopp bi yàlla rek laa koy seedeel. macha allah muy mhm. muy pas boo xamante ne nii dama ko franchir. si mhm. sama àddina muy lu ma neex dootuma gisati kuy naajati si erreur jëmale ko ci waajuram. Mhm. ndax dinaa ne la xoolal problème bi fu mu déparé. Mm-hmm. donc bi ma samay waajur expliqué ci problème am départ ba heure bi man tamit ma xam ne fii mm-hmm. jàngal samay doom. ma bañ mm-hmm. répétition yi. di la ko gërëme ko sante courage la dinaa sama njaboot ma taf si sama wet. wallaay yéen a courage. man damay wax koko man defuma dara. man defuma dara. wallahi koko courage bi nga am ni ñu bëri amuñu ko toog ak sa yaay jàkkaarloog moom waxtaan ak moom ci ay blessure dafa am solo gis nga bi nga koy wax sama yaram bi dafay daw parce que damay xam li mu mën a li mu mën a régler source sa problème yi àddina yëpp yow sa dund beneen page tourné ci dafa nekk loo xam ni dafay regle lépp ba pare daf lay indil beneen euh, yërmande ci àddina mais aussi euh, nettoyer la bépp salte ci sa àddina mu nekk lu ama am solo li ngay wax nii. intérieur am yàlla rek maa ko xam ko. sant ci waajur. Mm-hmm. si koo xam ne dama doon wax naan yal na yeex ki est-ce que bu génnoon àddina sax dinaa ko jooy. Mm-hmm. mais actuellement nii sama yaay mooy sama lépp mooy sama àddina fi mu nekk. macha allah macha allah donc Fatima aw ñu sa fay gërëm di sant. sant yàlla. Mm-hmm. ma nekk koo xamante ne dama nekk altruiste comme ni nga ko tuddee. di defalaate rek man pour man damaa war a jënd ni ñi. di defalaate rek man pour man loolooy bégloo nit lu ma am jox ku boo duggee sama kër bala maa am lu ma lu ma lu ma bëgg rek lu ma lu may sànno may yëg samay bagage di la may yëg samay jëre di la may di def lu ne mm-hmm. mais Fatima dem naa ba xamante ne ak développement personnel nit kenn mënu ko jënd mm-hmm. da ngay bëgg sa bopp ba pare bala ngaa bëgg keneen mm-hmm. Fatima nit mënul lépp gëmal sa bopp toppatool sa diine toppatool sa njaboot bul yaakaar jërëjëfu nit ñi ne moo lay jàlle non non non. wallaahi. ku la gërëm baax na ku la baax na. Mhm. yow sa tànk fi nga ko teg bu dee si salaatul mustaqiim rek nga ko teg. Mhm. li ngay dem defoo si dara lu ut yàlla yàlla rek foo toll moo ëpp maanaa lu mu mën a doon. Mhm. am solo. te da ngay oyof. da ngay oyof xoole sa bopp démb rek boo daan def ndax nit ñi tax ni nga sa xol ni mu doon xatee tamit. Fatima lu ma wax ne moom laay defal nit ñi ay jooy laa ko daan yeggale <laughs> damay jooy rek jooy rek jooy rek début début début problème abandon yi <laughs> di joxe di jooy doo am retour sa xol di metti te léegi moom dootoo xaar retour <laughs> dañ la daan bul am attente macha allah ma allah sant yàlla man damay toog mu yàgg ma ne yàlla bu ma ca dugg. <laughs> et puis si sa bopp tamit. ah temps sa bopp si sa bopp nii la neexee. Mm-hmm. jël sa bopp en charge wax wax si lu am solo. coupé mooy boo nga xam ne lii amul loo solo nga bañ koo jël man xamoo ne ñu ne sant yàlla ah. ok Fatima da nga ma jàngal da ma mm-hmm. jàngal c'est c'est sama sama sama énergie. waaw économiser ko. yàq altruiste yi altruiste yi ndeysaan. mais actuellement non non non daa cher. dafa cher. non dañ ne damaa ndeysaan war nga ma gis may dox si mbedd yi. sant yàlla. wallaay sant yàlla. macha allah. Fatima Zahra. yow ca kaw ca kanam. amiin amiin. ki ma dugal ci sa groupe bi fayal ma ma dugg. ku baax ne ma ah? doo am doo am énergie pour pour continuer cours yi il faut yow yaa yeggali paiement bi man waa baax na dinaa ko yeggali <laughs> mais dinaa ko fayal moom. pour yi di ñëw. ndeysaan ku baax de ay waay gis nga sant yàlla ndeysaan ku baax gis nga ah loolu lii mooy li naan li mooy yéene lu jàmm ak baax dëgg ndeysaan lii mooy xarit waaw bu ñuy wax xarit lii mooy xarit waaw lii mooy doomu ndey. nekkoon sama mini coach. ndeysaan di ndeysaan ko jàngal di di ak man loo ko jàngal appliqué ak man ba mu yàgg naa bàyyi ma dugg la ci cours bi ma nopp la ko gërëm naa ko sant naa tey ah, gis nga franchement kontaan nañ mm-hmm. sant yàlla sant yàlla nañ si yow li si li si naku yëpp xajul ci ci ci cim bi billaay ndeysaan dañ koy dog rek mm-hmm. ba septembre incha allah incha allah dañu ñaan yàlla képp jigéen boo xamante ne daje naa ak yow ci cours bi muy five di bi four saison bi ñaan yàlla daje waat ak yow saison bi ñëw incha allah rabbi képp ñu ma allahuma amin kontaan nañ ci yow Dieng. ñoo leen gën a kontaan en tout cas kontaan nañu. ndax man conseil rek laa joxe bu la neexoon ngeen appliqué bu la neexee tamit ngeen bañ a appliqué waaw ku appliqué gis njëriñ ku appliqué wul du gis njariñ ndax tey bu ngeen appliqué yéenay ñi nga xam ne yéenay jëriñu yéenay gis avancement yi kon damay wax ni tàccu leen seen bopp. waaw parce que rek euh, nit ki mën na la former ci guerre de waaye bu dem ca guerre ba jotee yow yaay dem <laughs> jël coup yi. kon nag boo ñëwee ak sa ndam da ngay tàcc sa waa nga xam ne nag euh, ba dugg ci terrain jotee yéen a dugg ci terrain yéen a jànkonteel ak euh, problème yi ah solutionné ko ah, am seen ay résultat kon loolu tamit dalay wan satisfaction ak euh, confiance en soi bi ngay am sa bopp sant yàlla baax a baax macha allah kontaan nañ kontaan lool si la wax si kaw tamit <laughs> bi lay ndeysaan <laughs> <laughs> en tout cas ñoo leen gën a di la wax salaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf yow tamit. jërëjëf sister. macha allah en tout cas ñu xool ko soxna yi di insister ah yëf moom des fois day xaw a. maaleykum soxna Fatima. waaw kooku soxna Mariama. waaw Mariama ah, d'accord soxna Mariama yegg si ñu lay fay. maa ngi leen di nuyu maa ngi lay fay Mariétou macha allah ah ma lu ma defaral macha allah. macha allah tey tey soxna Fatou man moo am na lu bëri loo xamante ne. vraiment xam ko woon ci sama dund. sant yàlla xaw ma bi mu ma li ma defaral billahi ah yàlla rek ko xam su may wax sax damay mel ni kuy bugg a jooy. li ma def wax wax rek ma solo billahi manqué exprimer. la loolu a moo ma sonal mais li ma defaral wallahi lazim yàlla rek ko xam. yàlla rek ma nekk nit ku teere avant damay gaaw nit ko xam damay gaaw a gis sama bopp loo ma def rek ma gis sama bopp ma xataraay waaye léegi même ku may liggéeyee ku ma def dara damay dal damay am benn dal moo xamante ne yàlla rek ko xam sama borom kër nag waxi noppi su ma lu ma lu ma wax rek ma tontu lu ma wax rek du ma war na baax waaye léegi daf may wax dara loo xamante ne wallahi lazim damay damay daal tey même su ma koy ñëw wax après dama koy wax. fulla mhm. ak fayal. mais avant su koy wax dara damay nekk di wax di wax di répété di jooy mhm. di répété di jooy sama sama kàddu du du ko dégg. Mhm. waaye léegi ak formation nu ma jàngal su damay bàyyi mu wax après ma ñëw su ma koy ñëw wax ma sama fulla. fulla ak fayda. ki la may gën a dégg. ci la may gën a dégg ci lay gën a am envie di wax ak man. vraiment surtout lu ma gën a ma kii sax si si sama wàllu njaboot yi si sama wàllu njaboot yi. soxna Fatima dama am benn prise de conscience boo xamante ne ah wallaahi lazim yàlla rek ko xam gisuma ko côté doom yi. sant yàlla benn prise de conscience. non man xaw ma lu ma lay wax sax billaay tellement j'ai des choses dans le cœur yoo xamante ne. sant uh-huh, yàlla mbégte la mbégte la li ngay jox doo ko doo ci dem sax vraiment ak générosité je suis tellement fière de participer si si parce que li ngay defal li ngay defal yàlla rek ko xam li ci biir ci biir kër yi yàlla ko ko yàlla yàlla la ko yàlla fa yàlla nekk sa misaalu dafa yàlla bu la ko ñu bokk ko vraiment. maa ngi jégalu bu parce que. wallaahi laa dañuy sant yàlla rek di wax merci à toi aussi. <laughs> Ah, merci ma chérie en tout cas kontaan nañu <laughs> xam nañu émotion bi moo tax. Euh, mu ngi noonu émotion yee yéeg mais nag dañuy kontaan bu baax rek di wax ni. lépp loo xamante ne rek yaa ngi koy waaw ñu ngi delloo ko soxna Kumba waaw ma ne ko maa ngi doon wax sànq mais réseau bi instable ah d'accord waaw ma ne di émission témoignage mhm, di mooy sama deuxième fois dëgg euh, foog naa bu bu defee defaat rek am na lu tax mu def ko. Mm-hmm. suñu yëpp moo tax ñu dugg mais mais comme ni ko waxee sànq rek fas yéene koo def di def di def rek ba keroog ñu koy mën saa koy mën daal nekk rek kàttanu yàlla. yàlla mm-hmm. ñu ngi lay dégg Kumba. ma ne li li li li ci li ci gën a jàngee euh, soo mos a fekk ne yow dafay xam nga doon.

am na bëri na loo xamante ni mi ngi feebar rek mi ngi koy def stress mi ngi koy sonal du nelaw def lan loolu da koy nëpp boppam. da ko da ko nangoo def du nangoo face à la réalité. parce que du bëgg gis loolu da koy refoulé di ko refoulé. di ko fekk mi ngi koy di somatiser mais vraiment di somatiser ak c'est di somatiser. Mm-hmm. mais vraiment di dalee jàngal yow. nga xam yo yaay kan ak li nga yëg ak boo ko mm-hmm. yëgee tamit nan nga ko war a defee formation cinq dem la da ciy dimbali bu baax te loolu vraiment jàngee nañ ko fi bu mm-hmm. ñëwee a côté éducation des enfants vraiment euh, loolu do man damay naan l'éducation autrement ndax mm-hmm. foogoon nañ ne xëy na ay dóor ay ay ay rabes ay na nangam na moo tax lii du ah ah mais dañuy jàngal nan la ñuy approché xarit ana ba ana nan a ko yërëmee ak raxma bi nga xamante a daw suñu diggante. Mm-hmm. dafa am benn baat ma ci Euh, comme da ngay ñëw sa doom sama doom di nga mel ma bëgg a mel di nga ni nga bëgg a mel noonu mais non non mais taxaw ana ni yàlla bëgg. Hmm. loolu moo ko fàtte. bonne question loolu moo ci ëpp moom dama ko cee jàngee bu baax a a baax. Hmm. ñun est ce que mel nañ bëgg. Hmm. ba ne ku ko bëgg suñu doom say dina mel ñu bëgg. ko bëgg sama jëkkër dina mel ni ma loolu keneen keneen di nga ni ma ni ma ko bëggee noonu nga koy fay ñu defuñu loolu kon suñu bopp balaa ñoo dem comme ni ma ko balaa ñoo na mm-hmm. boobu mu ñu ñëw ci wala ci ren wala ci ren boobu bu ñu fi fi nekkee di vraiment xam naa rek mm-hmm. fii la ñuy fanaan. <laughs> Ah, dañu fi jógee fii la ñuy fanaan mais mais rek. nga ne fii mm-hmm. am na loo xam ne jàngee nañ fa. dëgg la. jooyante nañu bu baax a baax ba ku ñu gis sax des fois ñi ñu daan ñu jëflanteel ah yow changé que de ah am naa ci benn sœur daf may naan ah yow tu m'as convaincu parce que tu m'as convaincu parce que gis na changement yi mm-hmm. gis na peut être euh, gis na gis na beneen approche bu bees gis na beneen ni nga xamante ne noonu laay xalaatee lu mm-hmm. bees parce que comme on dit jàng du wees mais nit lu ko. Mhm. nekkatu kese na ko lu ko lu ko baax fenn rek gis boppam. def ci gis boppam. dafay ay magum jëmm daf ci gis boppam. xam ne xamu leen ko xamu leen. wallaahi wax koo xam ne xamul xamu ñun ñoo ko ñun ko fee nekk moom moo mhm. comme ni ma ko santoo rek. fay mhm. kenn ku fi dugg fi mu toll nii. ku fi dugg euh, ndax dañ si xool fi kenn tàngal jox ñu fi kenn loo xam ne dañ lay wax loo nga wax wala dañ lay naan def noonu parce que li nga wax yow li nga yëg ngay wax waxaloo ko mm-hmm. kenn sa bopp ngay waxal li nga xamante moom mooy te tey foog naa jàng kenn foog naa man du fen boppam wallaahi wax di ko li am rek li am li am rek ngay wax maam si sa kontaan na <laughs> borom añee deux secondes yi <laughs> maam si sa kontaan kontaan moom gis nga waaw ku dara parce que xëy na noppi bu bëri xëy na. bañoo wax peut-être comme leneen leneen ci médiateur am na ci wax da nga doon muñ. ne mhm. non naa muñ grave moo moo moo moo mais léegi xam nañ fa ñu waxee nan la war a waxee. Mhm. aussi kuñ def lu métti tamit dinañ mën a taxaw ci xam wax xamal na ne lii métti na ma ñu passé à autre chose. Mhm. beneen observé aussi. pardonné sa bopp c'est le plus important aussi mais aussi dinaa tax mën a pardonné parce que boo baalu sa bopp a mën a baal keneen. c'est ça. dañuy génn si rëkk rëkk say nangam say nangam ginnaaw ba nga xam ne nii def nga ko. Mm-hmm. moom su bu dee sa diggante sa borom ba baalu ne tamit leçon de la vie la. Mm-hmm. tamit da nga jàngee a loolu pour liggéey dama ci daal. surtout ça. wala nga dem nga jot naa a taxaw parce que élever ce de maturité. Mhm. élever ce niveau de maturité vraiment jàngee nañ ko formation avec ñu jàngee comme bëri na bëri na bëri na ba pare la volet boo dugg volet boo dugg volet boo dugg am na loo xam ne mën nga ko cee wax sa diggante relation de couple macha allah sa diggante éducation des enfants sa bopp rek sax da lay yow boo fi dugg rek xool sa bopp rek macha allah dafa complètement na nga jàng sa bopp bu ma tee jàngalee nag sant yàlla mu bëri sant yàlla sant yàlla di la remercier bu baax a baax di la jaajëfal bu baax a baax a baax. amiin amiin di lancer un appel ak femmes yi nga xamante ne xëy na xamuñu ko. Mm-hmm. ñu xam ne euh, dañ koy dégg du ñu xam naan wala peut-être jàngewuñ ko fa ñu ko war a jàngee. surtout ça wala ñuy xool. man xool à gauche à droite mais non bii formation fekk day man j'appelle les femmes yi ñëw. parce que dinañ ci mm-hmm. defaroo. xëy na kenn ku nekk li la yëkkati ci dugg. li mm-hmm. na ute ma yëkkati yëkkati kii yëkkati kii. surtout retrouvé wu bu baax a baax parce a baax a baax a ci xool a cee a dugg gis seen bopp te ko na yàlla na yàlla xëy ma chérie kontaan nañu vraiment. ñu naan ziar nañ la yow ci wet bi jërëjëf jërëjëf. en tout di la jaajëfal bu di wax ni témoignage bi am na solo. Mhm, waa di dalal soxna si allo oui salaamaaleykum. waaw waaleykum salaam wa kooku Fatou Faye <laughs> ñu ngi di la ziyaare. maa lay nuyu di la ziyaar. Mm-hmm. maa ngi lay delloo ziyaar yegg di ko ziyaar. maa ngi lay delloo ziyaar. waa di sama témoignage rek. Mm-hmm. waa wax ne formation 5D jigéen bu ko deful. bu yaboon na def. ndax mm-hmm. booy booy ñëw 5D soxna Fatima ni ma ko mën a expliquer maanaam. dafay mel ni dañuy takk say bët. dafay mel ni yow da ngay dox ci àdduna boo xam ne say bët dañoo dañoo jël fulaar rek takk ko. mën nga ciy morom. gis nga nag boo ñëwee ba fulaar bi di deñ ba ngay ba ba ñu tekki say bët ba fulaar bi di deñ da nga naan non lii munul nekk lii munul nekk. lan ndeysaan. jàmmi xol ak jàmmi xel bi ngay am xel mu dal xam si ngay teg sa tànk dootoo jugé ti kenn yow moom sa bopp da lay bu bëgg tubay hmm. ndax yow booy ñëw da nga naan yow amoo benn sikk yow amoo benn yow lépp yow convaincu waaw <laughs> def nga li la hmm. nga ne hmm. <laughs> jëkkër moo la war a jox bonheur perfect na nga def waa lépp ci sa bopp lay dellu si waat di nga am jàmm xol jàmm xel waxuma la dara développement spirituel bi ngay am maanaam gën a xamaat sa diine gën a xamaat bi ngay teg sa tànk yenn ngëm-ngëm yi parce que par yenn saa di ngay dund loo xam ne du neen lii du neen waaw lii moom mënul nekk neen noonu la loolu la ah. ñàkk gëm-gëm yi da naan ah fekk ñëpp di ko def rek dama koy mhm. def te jullit warul dundee noonu jullit da nga war di gëstu di xam mhm. yow di xam sa diine di xam la mhm. lislaam may ak li la lislaam tere te loolu lépp ñu wa wax dëgg yàlla macha allah ñu ngi koy jàngee ci biir 5D yaa ngi daf ñuy daf ñuy defaraat daal en tant que nit daf ñuy defaraat tabaxaat la nga judduwaat tabaxaat jàmm gi ñuy may suñu borom kër may ko suñu borom may ko sa bopp njaboot rek loolu rek loolu rek formation wallaahi waxati daam yoo daam de valeur koy wax mm-hmm. ah, formation bi ñu fi ay daam de valeur lañu waaw ñii ñii ay femme ñii ay femme yu yore ay société lañu ñii ay avocat lañu ñii ay jàngalekat lañu. na leer de ah, na leer de daje. Ah, ay femmes yoo xam ne ñuy gérer ah, entreprise la dama dem ba yow sa entreprise ni nga koy gérer sa da koy xam parce que nit bu ñëw a détecté xam personnalité bi dina ñoom faana si se gi nga xam ne dañoo bëgg lu yomb ñu liggéey ñoom doo leen jël

waxuma la jàng ah, billaay rek maam Cissé bu duggee ndeysaan balak ñu ree ñoom Fane Cissé ah ñoom Aysatu macha allah imuur moo fa nekk ak ak maanaam ñun ñëpp ay ay sœur daal waa ñun ñëpp ay sœur la ñu fekk ba suñu mama yi mama umu mama ñaañi macha allah ñu doon ay mama yu exemplaire lay ndeysaan mhm. ñu doon ay mama xam ne boo leen déggee yow sax xel day daal da ngay mhm. ànd xel mu dal macha allah macha allah mhm. soxna Ndilaat ñëw sa assistante bu baax boobu. bu ñëwee ndeysaan dugam man daal maa ngi soog a nag maa ngi soog a ñam àdduna nag. expérience yu bari macha allah mu koy partagé ñun. ñun ñu ko ci sant di ko gërëm wax dëgg yàlla kontaan nañu. ñaan yàlla daal lii ku ko deful na ko ñëw def. macha allah formation jëriñ rek la. sant yàlla sant yàlla waaw kontaan nañu kontaan nañu wax dëgg yàlla. yàgg naa ci ligne bi nag ma bàyyi yeneen soxna yu. macha allah témoignage ndax dugg bi na solo kontaan trop di leen sant di leen gërëm yéen ñëpp wax dëgg yàlla. en tout cas kontaan di wax salaam wa bi am na solo. macha allah di wax ni waaw. kii soxna Mariam boo ko mënee yéegalaat jëkkëram moo bëgg a de. <laughs> Mariam Rasoul Mariam Rasoul Fall ah accord. xaaral ah, ma bëgg a dugg xam naa si turam moo tax. am na am na ku nekk ci ligne bi xaaral ma mm. am na ku ma décroché ba pare xaaral ma wuyu après ñu ñu jël ko après ma woo xaaral ma wuyu ma décroché wa rahmatulah. aleykum salaam salaamaaleykum. waaleykum ñu ngi delloo ziar kooku. ku ci ziar naa la man Aminata Touré. Aminata Touré nuyu nañ la ziar nañ la. tey nañ ziar bu baax. ñu ngi leen di leen ñëpp macha allah soxna Kiraan. yéen a ngi belli macha allah. <laughs> macha allah. di wax jazakallah eh, xeeran. amiin parce que évidemment maa ngi doon rek di naan man xaaral dugg xaaral dugg rek topp ngi <laughs> ay sa duggee nag laa ngi noonu xool di tooy ak kii bi non émotion bi daal mooy loolu mais sant mm-hmm. yàlla parce que coach. Mm-hmm. li ni ñuy wax rek li ñuy yëpp yëpp yëpp moom. maanaam doole rek laa ciy def parce que sant yàlla parce que li ñu naan les gens n'existe pas. parce que formation bi balaa nga ciy dugg ci ñun ñëpp dangay dekk ci ay problèmes yoo xamante ne doo xam ban solution ngay sama genre man dama doon ñaan suñu borom solution solution ba yàlla def ba ma tombeek yow. Mm-hmm. te loolu balaa xamee ni ba ma dugg formation bi ak ngëneel gi ma ci gis tawxiit bi xam sa bopp bi surtout ak maturité bi xel bi. quiétude bi ngay am. loolu yëpp sant yàlla boobu noonu rek rek rek amuñ amuñ ci sax amuñ ci fay daal pour ñu ñaanal ak ñaan ñu lay ñaanal kochu kocha li ñuy ñaanal loo bëgg yàlla defal la ko maanaam ñu bàyyi nga bàyyi ba si kanam ñu bàyyi ba kanam suñu borom defal la jàmm sufa lépp nga dund ba gis lépp incha allah rabbi parce que maanaam mënuñoo wax lépp lépp lépp parce que man moom xam naa ni man man nga xam ne ci dépression laa doon dund <laughs> mooy noonu te tey tey maa ngi dund loo xamante ne ay maanaam li ma xam ci sama diine ak sama bopp. Mhm. maturité bi tranquillité d'esprit bi. Mhm. avant dama ko mere sama bopp di mere nit ñi. Mhm. surtout comme am na ko sànq da ngay naan yow defoo dara nit ñi kese ñooy def. au final ma dem ba xam. di nga xam sa bopp ni yow. problème bi bari yow ci yow la c'est toi qui yow yaa war a régler sa bopp carrément intérieurement. de sa bonheur du jóge ci keneen. xool ci ban fréquence ngay taxaw <laughs> fréquence du bonheur. yow la yow yaay kan exactement. Mm-hmm. te doon doon nangu tamit keneen di frustré di ñëw di la dugal ay. négativité mu ngay dugal sa yow di rey sa bopp. surtout loolu surtout loolu am solo loolu yëpp grâce à formation bi. Mm-hmm. waaw dañuy am quiétude. am sakina bi am tawxiid bi surtout loolu. parce que maanaam que ni que ni ñuy tourné fii bidaa yi yooyu yëpp. mooy caabi àjjana bi de yooyu yëpp. daal mooy caabi àjjana loolu. <laughs> loolu dara sant yàlla dëgg dëgg dëgg ñu noonu. te mm-hmm. incha allah rabi ñaan nañu yàlla dem ba ay cinquantième saison incha allah. amiin na ko de. Mm-hmm. amiin yàlla yàgg ci ligne bi. xam na ni pour ñoo wax lépp moom. fi mm-hmm. la ñuy fanaan ñu jazakallah xeer. amiin wa yaakum soxna ñu laan ni maman um maman ñaaña. macha allah waaw Aïcha Diallo ñoom ñëpp ak suñu leader bu mag bi dixième personnalité. <laughs> gis nga. <laughs> Khadija Fana euh, di leen nañu bu baax a baax bu baax a baax a baax. merci na yàlla fay vraiment. di kontaan si participation bi. amin way yaakum maa koy marché en tout cas ñu ngi kontaan ah, ñu xool Mariam ñu woo ko mm-hmm. salaamaaleykum wa rahmatullah d'accord ah loolu moom ah d'accord bàyyil ba mu yegg si eh bàyyi ko ba mu yegg si mu waxal ko boppam ne ko bu ñëwee ñu ngi <laughs> bu fekkente ne dafa ñëw. waaw que nee na lenn dafa am na nit ñi xam ne moom dalaa jox dox ab bu ànd ak karkaas. mbaa jox la ko yow ko a jafe mooy nit bu nitee. <laughs> waaw balaa ma ne mu ne ko mu yegg ko. ah macha allah kontaan nañu daw ndànk balaa ñu naan ma maa tey waat liñ bi. <laughs> macha allah en mm-hmm. de parler la communication. Mm-hmm. loolu tamit dafa am benn remarque ci def avant. avant tamit dama si amoon problème parfois dama daan dem ay séminaire dama daan am problème pour ma mhm. exprimer wu mhm. mais après la formation franchement su fekkente ne damay wax sax man damay kontaan damay commencé di naw sama bopp tellement écoute bi nga xam ne ne nit ñi ñu ngi koy jox mhm. kon nga xam ne ne tamit wax dëgg neex yàlla formation bi riche na macha allah et puis ma ko doon waxee rek tout chaque fois dama doon am habitude di ko répété naan même enseignants yi ñoom ñëpp dañu waroon a xam 5D di bi au moins. macha allah pour ñu am notion mhm. ci ci ci éducation. des enfants mhm. kon man maa ngi woo ñëpp à tout le monde ñu ñëw ñu participer si. léegi monsieur peut-être mhm. il va revenir. moom nee na fekkee dafa fekk génn il va laisser son message. incha allah. <laughs> voilà waa kay merci beaucoup. en tout cas kontaan nañu mel ni. ah Aïssatou nuyu nañ la ziar nañ la. ouvert. Merci. Donc, euh, donc, merci, coach. Mais que la. Euh, macha allah. personnellement li ma apporté macha allah. Mm-hmm. damay toujours man am ma sa fay. Mm-hmm. bi am sa fay yal na yàlla fay. ndax ko ci li nga def ci man. tax na ba ma am ginnaaw yàlla suñu borom tax na ba ma am paix intérieure. man ko su man li ma doon du li ma doon dundee li ma doon demee doxul. Mhm. développement personnel change wax changé na ma def na ma ma nekk ko positif. macha allah macha allah li ma bëgg a wax yëpp sax. sant yàlla <laughs> ma ko wax émotion yaa mais ma macha allah coach daal coach bu ma xoolee ne sax yaa ngi ñaanal sax sama sœur bi tey Fatou Ndao yàlla na ko yàlla yërëm. amiin amiin xaaral ko àddina à chaque fois formation bu daaw bi daf ko def mais daf may wax ay surtout kii bokk leen. bokk leen bokk leen lii xam tant que dundoo na ko tant que duggoo ci bi bu ñu lay wax nii sax. Mhm. doo mën a doo comprendre sax liñ lay wax. Mhm. mais tant que dama dugg doo mën a bi da ci daan kontaan mm-hmm. yàqante jour bi ne ouverture dafa kontaan woo ma ne ma fii cinq day mm-hmm. ubbi na. macha allah mu ne ma ah macha allah non non que si que changé na changé na man sama dund. sant yàlla non changé non changé bu baax nee naa léegi dafa tranquille am paix intérieur di positivité léegi li mu lay jàngal mooy sa diggante sa relation ak sa borom kër. Mhm. ak say njaboot ak say waajur ak sa entourage. Mhm. yow da ngay déggee mhm. nga tranquille tu très douce. <laughs> sûr macha allah daal wax dëgg yow daal amul sa fay loolu di la ñaanal suñu borom yàlla na la yàlla fay di di ñaax tamit suñu mbokku jigéen ñi jéem leen ngeen dugg ci. jéem leen ngeen dugg ci ci ci ci 5D bi mais bu ngeen ci duggee leen di def leen soppi. billaay ndeysaan daf leen di sawar. billaay sant yàlla jigéen ñi dund no stress nag. waaw mbaa du dunduñu woon mbaa du dunduñu woon dañ doon cadavre en ville. <laughs> man est-ce que la moom bi baaxul. mais boo duggee fii non stress ngay dundee. Euh, non stress stress mi ñuy sonal stress mhm. yi. Mhm. Ah, di somatiser rek di somatiser rek. surtout du sotti de. kese kese ah. kese kese nag kese waaw ma ne ko. bëri feebar bëri feebar te yow sa feebar amul garab boo yegsee cinq de la di nga gis feebar yu sew sew yooyu yëpp nag lay xamal. ci bopp bi la jógee. Ah. merci. ci bopp bi la jógee de loolu yëpp de. non ni ngi non li nga ñam ko daal ñu daal foog nit ñi dugg ko. dugg ci pour mën a comprendre. pour mën a comprendre buñ lay wax nii sax doo mën a comprendre. waaw buñ lay nee sax mais bii mooy sama première saison bii mooy sama première formation tax parce que yéen ñoo ko bàyyi. macha allah sant parce que ndax li ma abatal gis naa li ma ci yëpp boo duggee gis naa tax loolu sax comme tu vrai. sant yàlla. Mhm, waaw di la sa biir néegu sëy di la dimbale di la améliorer sa néegu sëy sa diggante sa borom kër sa borom kër day gën di kontaan sax si yow na teg si nag pour di vrai. sant yàlla sant yàlla baax na ko macha allah. maa ngi sant yàlla bu baax a baax bu baax a baax a baax. macha allah merci beaucoup merci beaucoup à toi. am naa si kàddu incha allah. en kontaan nañu di wax ne. am na solo bu baax a baax kàddu yi am na solo parce que xam naa ne ñëpp ñëpp a ngi buuxante <laughs> c'est émouvant mm-hmm, aussi mm-hmm. mais daal ñoo xam ne rek euh, lu ñu lu ñu dund la durant tous ces mois on a pleuré ensemble on a ri ensemble euh, vraiment mu nekk li may wax naa nekk euh, famille parce que tamit tey dem na ba nga xam ne 5D nekkatul rek 5D rek mais famille la famille waaw famille xamante nañ ci relation d'amour bi am suñu diggante c'est tellement fort ba nga xam ne. Euh, mm. nit ki des fois day nekk ci ay problème damay toog sama xel ne yar ci moom ma ni waa ana diw su demee laajte ko mu ne ma dama feebar wala dama am problème bi wala dama problème ma ne xoolal pourtant fan yi yaa ngi percuté samay xalaat kon su se dit que day dem ba nga xam ne day mel ni ñii da nga bokk ak ñoom deret wala da nga bokk ak ñoom kër ba dara bu xewee c'est vraiment quelque chose boo xamante ne c'est la famille man man ci euh, am lépp daal daal du affaire réseaux sociaux waaw surtout ça surtout ça yamul foofu mm-hmm. c'est la famille c'est la famille dëgg naa c'est la famille c'est la famille dëggantaan sax ndax yëg-yëg bi ñuy am du ñëpp ñoo koy mm-hmm. yëgandoo ñun ñëpp dañuy bokk ndoo mm-hmm. dundandoo ko nga am bànneex ñu partagé noo ko ak yow nga am naqar ñu partagé noo ko ak yow. Mhm. lu jafe macha allah du affaire réseaux sociaux kese de yemul fii kese. man fii ndax ñu dund naa ko vraiment. Ah, parce que dañuy xam ne mu neex mu metti rek euh, bu ñu wootee ci tawxiir woote ci diine rek dañu war a yaakaar naa comporté wu comme tel. waaw ah, bañ a nax suñu bopp. Mhm. waaw parce que nag am na loo xam ne moom nax sa bopp nag lay daal di nuru. ah surtout la merci diine loo xam day amélioré si sa côté diine loo xam te da nga ci doon réer da nekk ci mm-hmm. réer ci gën la ci diine ñu nga amal oustaz bu lay xamal sa diine. non ça lii formation bi maa koy a dégg. sa kër am paradis moo tax gars yi bu ñuy bu ñuy altéro des fois ci internet bi di wax man leen da ngeen a xamul rek maa ngi def seen kër yi àjjana te yóbbu leen ko. dëgg la dëgg la dëgg la macha allah. gis nga gis nga naan doon wax rek paradis sur terre. Ah, macha allah mooy sant yàlla parce que nag euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam du waxantu bu ne am na àjjana bu nekk kaw suuf ku ko ñamul doo ñam ba ca kaw kon yow booy dund te amoo àjjana sa xol bii di metti ngay dëkkee problème ah war xoolaat sa diggante ak sa borom nag de waaw mooy réviser baax a baax parce que y a beaucoup de problèmes des fois nag ñàkk xam dafay tax nit ki ngay làmbatu rek yaakaar da nga nekk ci dëgg di fëgg sa dënn fekk na malheureusement képp ku réeroon daal ku nekk si sa naqar boo ñëwee fii di nga génnee ko di nga wér. ñu feebar ni dinañ wér. fii <laughs> daal non stress. stress allah en tout cas ko na macha allah merci beaucoup jaajëfal la bu baax a baax. macha allah ñeneen ñi dugg di wax sama communauté Facebook ak euh, TikTok partagé leen live seen statut yi seen page yi ak ngeen daal di tàggee turu seen xarit yi nga xam ne bëgg yéen a ngeen leen 5D bi ngeen woo leen ñëw ñu yegg si Ah, ñu daal de xool seen bopp daal di xool nag euh, que ni comme niñ koy waxee rek des fois nit ñi moom duñu na duñu nangu gëm dara tànk gisuñu ko waa te léeg-léeg 5D moom di ko di nga ko gis wala di nga ko dégg nit ñi di wax mais doo mën a comprendre ñii lu ñuy wax nii ay li bëgg lippoon lay nuru ci yow ba nga ne danga ci dundoo ko ah, kii xaritu xaritu euh, Maam Penda la <laughs> waaw waaw doomu ndey maam Penda ngi nii. maa si nuyu la ziar nañ la. maa bu baax a baax a baax. yegg si la jaamu salaam daal. di ziar ñi naan macha allah suñu assistante bu ñaawul bi. waaw coach. waaw comme ni ko ñëpp waxee rek comme ni ko ñëpp waxee macha allah ñu ngi lay jaajëfal te di la di wax ne transformé nga suñu vie. aleykum salaam dama amoon benn appel. ah d' accord dagg kii bi. ko waaw. léegi comme coach ni ma ko waxee comme ni ko daam yëpp waxee. ñoo ngi sant di gërëm. muy cant boo xamante ne am na eh, tàmbale waaye amul fu mu yem. ndax li nga ndax li nga sopp ci suñu ci suñu dund am mhm. solo. Euh, nit ki nga xamante ne soo ko bàyyi woon daanaka day yàq di dem ta yàq bi muy yàq yi dafay jàpp ne mu ngi defar. Mm-hmm. te fekk na ma ngay yàq. xam mm-hmm. nga euh, ki am conscience que man maa ngi naan kii xam na ne mu ngi yàq mais ki nga xamante ne dafay yàq ba pare te pourtant boo ko xëy na non pourtant man damay defar de. loolu mm-hmm. la ñëw nag man ñun defar leen woon na ngeen nekk di yàq. non seulement mu ci suñu ci suñu dund ñun suñu bopp mais aussi mu ci suñu dund njaboot. ndax euh, moo koy faral di wax man l' éducation des enfants dafa nekk loo xam ne dafa ma neex. Mm-hmm. parce que man dama dama yàlla moo bindee ma nekk bu am yërmande ci doomu aadama. Mm-hmm. te ay xale yoo xamante ni ils n'ont pas demandé à naître. ñoom mm-hmm. yàlla jaarale ko say loxo ñu nekk ci yow. nga di leen yar xeetu yar boo xamante ni dóor la. saaga la bunduxataal la mm-hmm. humiliation la dooya mm-hmm. dal la wàccee la ci ay xale yoo xam ne ay damay dégg ay sab silla muy ne man ndekete yàlla dafa ma may ay doom yu baax te xaw ma ko woon mm-hmm. ne man ma amoon problème ndekete ndekete man ma amoon problème wallaahi kon da approche bi ñuy am ak ay doom ndekete yoo approche bu baax Mm-hmm. yow nag nga jàpp ne man sama doom bi dañoo bon nekk problème bi ci yow xam nga li ma nekk ci développement personnel mooy. Mm-hmm. maanaam moom du la du la joxoñ loo nit ñi daf lay joxoñ loo sa bopp yow. Mm-hmm. <laughs> dana naan dana naan yow xoolaatal sa bopp yow loolu la lay wax donc nga jàngal ñu ne balaa ngaa yar sax yow yaay da ngay yar sa bopp ba pare. Euh, donc ñu njëkkee foofu yaraat suñu bopp suñu yenn yi nga xamante ne ñun moom moo nekkoon ci ñun ñu éradiquer ko jël ko sànni fële xam ne baaxul. ñu amaat beneen changé waat paradigme yi dafaat beneen départ ñun ñu gërëm la ci suñu njabootam di leen ci gërëm parce que xale boo xamante ni dañ ko doon dóor di ko saaga di ko xas bu dee ba dootuñ ko saaga suñ ko di ko ne ko toogal nga toog dóor daa metti maman kat moo juumoo merci merci dóor daa metti <laughs> dóor daa metti non dafa dóor dafa metti ko dóor dafa metti ko yaa ku nekkoon ko sama ay dóor dafa metti waaw <laughs> waaw ay dóor nag nga war ñëw dugg ci kër gi mu leen ne yow boo ñëwee yow ku laakoon nga fi fekk te Mamissa lu gën a lu gën a daw yaram Mamy Sarr mooy dañuy répété ndeysaan lu ñu lu ñu yaree woon nga xam ni tey moo tax euh, développement personnel lu mu leen njëkk a wax mooy nga plongé waat sa histoire sa enfance surtout te boo plongé sa histoire d'une manière bu sincère rek di nga jooy sa enfance yi parce que di xam ne dundoo enfance bu heureux ndax dóor yi te ku ci mucc bëriwul. léegi on répète la même chose et pourtant li ñu répété neexuñu de malheureusement mais on neexul. waaw ah, olof mais malheureusement tu répètes la même chose. Mm. soo toogee di nettali sax danga naa man ni ma yéree kat neexuma dañ ma daan dóor dañ ma te pourtant yow boo xoolee yow même cheminement bi nga jël. dafa séenee wu ñu changé dara kon y' a problème. wallaahi waa kay. Mm-hmm. y' a problème. wallaahi yow neexul ko tudd tout temps yaa ngi koy reproduire kon taxawal nga xoolaat sa bopp. ñu <laughs> <laughs> ñëw. Euh, jàngat éducation des enfants parce que gis naa la dugal ko ci internet bi di leen mhm. invité ñu ñëw mhm. macha allah dem nga bari yu bari ne léegi yaa ngi koy def gratuitement parents di ci mën bénéficier donc nañu ñëw mhm. euh, man dama daan toog sama xol nag naqari coach may am lu ma métti may tëdd sama néeg bi man kese sama tension di yéeg te moo ko waral moo tax du ma wax sama jaay jaay ci développement personnel du ma sama loxo indi ma ba ci Mm-hmm. xamale ma ak yow ba dugg sayti ba tey mu nekk kaf na reetaan xam nga sànq ñu naan dafa wax lu am solo mm-hmm. maanaam mooy jigéen ñi dañuy def benn souris de façade boobu nga leen xool yaakaar ne elles wallaahi te fekk boo xaree seen xol ay problème kese moo ci nekk mm-hmm. lu leer lu leer waaw cinq bi nag ku fi jaar sa xartu ngay sol xam nga xartu. <laughs> di bel moom ngay sol boo neexee sax wala boo neexee sax nga teg sa carax douche de waxuma ay yii de carax douche boo neexee nga toppatoo génn ji bi duñu xool la di la yoram fekk yow sa xol bu ñu. surtout ça <laughs> doo yëg lu bëri. yow ku la yaa ngi am benn paix intérieure boo xamante ni. Mhm. ndeysaan da ngay romb daje koo xamante ne ma nga takk ay oram ba mu wàcc ndeysaan def talon def des neeram waaw. fekk na ndeysaan. oh intérieurement sant naa. bu waxee rek nga xam ni ba pare Mamy Sarr nan ngay détecté problème maanaam da ngay jàkkaarloog nit nga xam lu bëri <laughs> loolu duñ ko gëm sénégalais yi duñu duñu gëm lool. ñu ñu ko ci gisaane kat la rek ay code la <laughs> uh-huh. waaw yenn saa yi yenn saa yi day dugg ko si tontu ko waa ko si wax naa gisaane kat ngay mm. ndax yow da ngay wala la nu mu demee noonu xam nga de ngay invité nag euh, jigéen ñëpp nañ ñoo inscrire ci 5D bi te def formation yooyu fii benn waay waay newu fi. Hmm, waaw ay dame de valeur ñoo fi nekk. y a des hmm. enseignantes y a des avocats. Hmm. y des chefs d'entreprise. y a des infirmières macha allah. yéen éduqué nag def seen ay ay études yu yu yu macha allah yu mucc ayib. mais xam nga bu ñu demee ba fay suñu xaalis di ko fayaat ba pare ñoo toog fii di jël suñu temps ba pare ñuy dem di liggéey takk say casque di déglu yaa jël ay notes. xam nga loolu ñu def ñàkk fayda. Mm-hmm. ñun amuñu jot ba ñu perte ay affaire yu ñàkk fayda su fekkee su fekkee dañ ko jox suñu temps. c'est mm-hmm. parce daf ñu amal njëriñ. Mm-hmm. ba pare ñu nga xam te ne def na ko ci suñu dund. surtout loolu surtout résultat. ba pare surtout nag la ci gën a neex ko ci nga ci. ci ci suñu éveil spirituel macha allah. ñu ngi ak oustaz bi nga xam ne saa Cheikh Ibrahim ñu koy jaajëfal macha allah Mm-hmm. waaw indi gars yi ci tawxit ba suñu yenn pensée yi ñu doon am suñu mm-hmm. ñu daf ñoo libéré de ci colonialisme bi <laughs> colonialisme bu metti gi baax <laughs> Ah, mu bëgg a rey nga nekk ci Soudan ngoon da yaakaar ne suñ ko defut sax yow mii tey nga dee wala nangam dikkite yoo yow islam dina daf ko daf ko simple. yii balaa yomb yàlla méttiwul dara suñu kaw. yomb. Mhm. waaw nag gis nga daf lay libéré carrément. Mhm. nga xam ne yow mii yaa ngi dugg tawxiid bu am solo moo tax ñuy wax naan développement personnel ak. diine seen ànd dañoo xamul. dañoo comprendre <laughs> amuñu seen diine. bu ko defee loolu cinq de. loolu mhm. cinq de boo ñëwee cinq xam ne lépp euh, développement personnel. mu jaar ci yow de mu mu jaar ci yow. <laughs> ségg ko ah foog ñu ségg ko nag. waaw ku dugg ci YouTube bi da ngay jàpp développement personnel dafay bokkaal nga fi fekk ay chiffres nga fi fekk. Ah, lu leer lu leer waaw. chiffres nga fekk boo ko bëggee da ngay mhm. ko dëppale ak sa diine yëkkal la sa tawxiid macha allah nga xam ne defal sa relation sa diggante ak sa borom. Mhm. waaw.

Seynabou bu yegsil yegsil allo waa ñu ngi lay dégg waa waaleykum salaam wa rahmatullah Seynabou baat bi na kawe tuuti dafa suufe kon yegsil waaw ñu ngi lay fay nuyoo ñu ngi lay fay macha allah macha allah. di wax sunu mbégte. Mm-hmm. di yàlla boole mm-hmm. yàlla bu baax. Mm-hmm. yaa li nga bëgg yaa ko yàlla na la ko yi nañ koo wax ndax benn la nekk na loo xam ne doo ko mën a tax a nekk loo xam ni macha allah euh, bañ fay ñëw euh, nekkoon nañ koo xam euh, bari comprendre lu ko woon. bari tamit xam ñu woon lu bari mais la fekk ñu dugg 5D ñu ñëw comprendre yu baree baree bari ñu dund comprendre suñu bopp ndaxte léeg-léeg ngay dund yow. yàlla def toujours ak comme ni ñu yaree nga xam ni ñuy yow nga. comprendre la mhm. mhm. dëgg la. mais mhm. lu bari dëgg la jàngal lu baree jàngal ñu ko kitaabu nikah. Mm-hmm. macha allah loo xam ne bu bu bu ñu laam-laamee ci dara ci suñu wàllu jiw. Mm-hmm. dina jaajëfal ci programme yi nga xam ne jàng nañ ko fi yëpp. Mm-hmm. Euh, yëpp am éducation bi nekk loo xam ne macha allah. nekk na lu jaaxal nit ñi. rek ñu ñaan ci sant yàlla. sant yàlla. yaay yi ci boppam ñoo war a defaru ñoo wax rek. Mm-hmm. voilà. incha mm-hmm. mm-hmm. allah. xale yi moom xale mm-hmm. yi mm-hmm. da day feeñ day feeñ ci résultat yi. macha allah bu baax a baax a baax ko xamee rek sa bopp rek de ta vie comme niñ koy waxe waaw boo defarul sa dund kenn du ko defaral kenn defar ko dund solo xel may rek mm-hmm. allah di lépp sant bu baax a baax a baax mm-hmm. lépp nag mënuñu ko ndax contentement euh, mm-hmm. la famille li muy wax bu jëlee ci xolam. Mhm. yàlla def ànd bu xam bu feer bu dëgg. wallaahi suñuy maam. Mhm. waaleykum salaam salaam. waaleykum salaam yaay booy may ñu tuuti rek ñu àggale. sëy na bu àggaleel. waaw àggaleel après ñu jël yaay booy. Mhm. allo waaw Seynabou waaw ñu ngi lay dégg. allo allo waaw salaamaaleykum. Seynabou. waaw ñu lay dégg Seynabou waaw. waaw waaw. allo waaw Seynabou ñu ngi lay dégg ñu lay dégg. Seynabou ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg waaw réseau bi taxaw waaw waaw sëñ merci beaucoup sëñ euh, am na solo macha allah euh, amin amin amin amin amin amin seen sa bi nag dafa suufee sa <coughs> bi dafa suufee trop allo waaw. dégg waaw lay dégg mais dafa suufee nag trop boo mën ñu ngi lay dégg waxal. lu soxla. dem leen fële ci ubbi amul bunt. ma Seynabou waajul maa ngi lay dégg xale yi ñoo may distraire fii. Seynabou waaw ñu ngi lay dégg waxal allo waaw allez-y Seynabou waaw merci merci beaucoup jërëjëf amin amin amin amin amin ñu bokk ko en tout cas kontaan nañu. Mhm. di wax waaleykum salaam wa rahmatullah ñu dalal suñu gan gi Yaay Fall moom daf daf ñuy suivre tout le temps moom tamit muy def liggéey bu am solo ci xale yi. macha allah bu ko defee ñu daal di koy dalal mu yegg si Yaay Fall mu nga yegg si bu ko defee ñu mën a. coach nga jël sa yaay tamit. mu yaay booy waaye yaay booy tamit yëg na moom. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw coach maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax. ñu ngi lay delloo ziar yaay Fatou di leen ziar sa équipe wax dëgg yàlla man dama la kii rek ma ne xaaral ma dugg parce que gis naa depuis nga defoon annonce bi ma ne dinaa bu xat xat xat dinaa ci dugg parce que. je pense que ñun ñooy le même combat. Mm-hmm. et may gis nag sa détermination euh, malgré yenn euh, yenn message yi gars yi di bind pour décourager la. Mm-hmm. mais ma gis ne <laughs> yaa ngi tenir le coup parce que nit ki moom soo demee ngay def rek te mu leer na la yow mm-hmm. tu sur la bonne Euh, am mhm. na loo xam ne mënu la décourager te damay toujours ne dund ci diaspora bi métti na métti waay boo xam ne bu mhm. fi nekk di jigéen rek il faut nga am santé mentale bu dëgër il faut nga am set bu dëgër mhm. pour mën a développement personnel dafa baax ci lépp loo gis te jigéen ñi fii ñi ngi dund dund yoo xam ne ci biir kër yi foog naa leçon yi ngay def nii du sax pour jigéen ñi mais góor ñi sax dañ ci waroon ñëw di jàng. <laughs> góor ñi sax dañ ci di jàng. parce que vraiment di ñu boo diine billaahi parfois danga leen di wax loo xam ne ñu nekk di weddi ñoom diine duñ ko woo lu dul tànk rek du lu leen arrangé. diine diine diine mais diine waxu la fenn benn yoon ngay ngay toroxal jigéen. wala nga koy manqué de respect. wala doo tenir compte ci ay besoin wala yow loo ko wax ko ko déedéet loolu benn diine waxu ko fenn. ñun ay ay reen lañ ay princesse lañ donc mhm. liggéey bi ngay def rek laa ne woon naa dugg rafetlu ko parce que man femme yi mhm. may contacter yëpp dama naan leen dem leen ci ci page yu Firdawsi Coach ngeen bindu foofu parce que foofu ngeen mën a amee mhm. développement bi ngeen soxla foofu ngeen mën a amee parce que développement jigéen ñi dañu soxla ku ñu waxal dañu soxla développement personnel développement personnel la ñu amul wóoluwuñu seen bopp mën nañu joxe surtout mun nañ joxe conseil nii si réseau sociaux yi c'est bien beau mais du régler problème bi. déedéet comme ni nga waxee góor ñi. jàng nu ñuy amee xaalis ak nu ñuy amee jabar moo leen gënal jàng nu ñuy téye seen sëy ndax ñun suñu culture lu mu ñu jàngal mooy jigéen mooy téye sëy. kon foofu la départ ba mhm. léegi nag ginnaaw loolu la jigéen ñi gëm loolu la góor ñi gëm kon jigéen ñi ginnaaw ñoom ñooy souffrir ñu récupérer leen jox leen li nga xam ne mooy prévention. Mhm. prévention boo xam ne tey du ñu ne doo souffrir mais bu souffrance tegoo di nga xam ni nga koy gérer ba doo am stress mhm. doo mhm. am ay doo am ay feebar xol doo fi dof doo fi bàyyi parce que say doom soxla nañ la société bi soxla na la te it ñu xamal ne sëy tamit dafa am loo xam ni dafa am base yu diine te diine dafa am lu mu prévoir donc xam sa diine dalay may force te jigéen ñi noonu lañ leen di delloo mooy delloo leen ñu xam seen diine xam seen bopp xam valeur bu ñu am suñu borom bu ko defee dañ fiy jógee ak détermination ak enthousiasme optimisme boo xam ne vraiment kenn mënatu leen këf en fait kenn mënatu leen euh, dépasser wala di leen yéeg di leen wàcce seen objectif. loolu tey di nga nekk góor ñu toxique. mais toxique mm. boobu dootula laal parce que da ngay teg mm-hmm. benn mur ak barrière entre yow ak moom da nga koy xamal ni sa jeu xam naa ko sa foo bi ngay foo xam naa ko mais duma laalati dootoo ma énervé man sama objectif mooy liggéey takk sama euh, sama sër daal sama doole taxawu sama njaboot ak sama bopp. yow nag bu fekkente ni ni nga bëgg dundee kooku mën nga ko dundee sa colère du sama colère sa frustration du sama frustration. Mhm. da soxna yi loolu dañ koy jàng di ko pratiquer di gis ay résultats bu ko defee dañuy njëkk ne couche man xaw naa dee. <laughs> <laughs> bu ñu amee bu ñu ah. amee bu amee parure bu ñuy teg seen kanam ak ñoom rek loo xam ne mhm. courage bi courage bi suñ ko amee rek am développement personnel bi nga xam ne man sa sa sa état d'âme géreetuma ko mhm. sa état d'âme sa man duma ko jël en charge c'est ça parce que ay sa jëkkër bu bëggee yow yaa koy bëggal sa jëkkër yow yaa mën a tax mu loolu ngay njëkk a dindi déconstruire ko dama koy dindi teg sa bonheur yow yaa ko moom waaw doo sama priorité sama bopp mooy sama priorité ak sama njaboot waaw après yow boo kontaanee sa problème la boo meedee sa problème la man wax dëgg yàlla li ma euh, signé ma yàlla sant ci yow koy def mais sa bonheur moom ma ko boo demee xooli feneen loolu du sama responsabilité sa bàkkaar la sa diggante ak sa borom donc c'est tellement bon <laughs> parce que ku fi ñëw dootoo dootoo jooy parce que yow la dépendre da ngay nax sa bopp surtout ça soo bëggee ne sa bonheur jëkkër si yow la dépendre da ngay nax sa bopp nga bëgg a gérer ses sautes d'humeur ak yooyu yëpp yow nekkal sa priorité defal focus sur ta propre personne defal focus sur ta propre personne parce que yow sa njaboot yow la soxlo mm-hmm. donc si tu n'es pas heureuse si tu n'es pas épanouie tu ne peux pas l'être avec une autre personne nekk ko yow ba pare maltraité xale yi rek la ñuy def topp xale yi rek di leen di leen parce que après tout boo amee sa colère en toi colère boobu mooy génn ci say euh, jëflante mooy génn sa comportement parce que li ma leen jox tout le temps nañu arrêté naan am naa problème maa ngi dund maa ngi xàppi xàppi woo da nax sa bopp waaw parce que tey boo amee problème il faut apprendre à le gestionner depuis le source ñu arrêté di wax ni am naa man kii teg na ma problème waaye dund ma ko déedéet dafay dafay yomb trop waaw nit ki même boo xamante ni am nga problème amal aptitude amalay outil outil yoo xam ne tey mën nga gérer say émotions mën nga gérer aussi sa sa sa colère sa frustration sans pour autant nga daal di koy transférer sa njaboot wala nga transférer ko sa doom nga xam ne xale yi ils n'ont rien fait ils n'ont pas mm-hmm. euh, boo xamante ne xamu fu mu teg tànkam parce que mm-hmm. des fois problème bi mooy jigéen ñi li ma leen dox tout temps dañuy souffrir fàtte ni ni ñuy souffrir seen doom ñu ngi souffrir double bi wala quadruple bi parce que ay xale lañu nga indi leen ci kaw suuf bàyyi leen ak boro bàyyi boo xamante ni dictateur la yow ñu lay maltraité di maltraité say doom sañoo wax. Mhm. li ngay njëkk a nangu jël ko comme pouvoir mooy doom yi man maa leen jur man mën naa souffrir mais à mes enfants tu ne les fais pas souffrir. boo mënee nga téye boo mënoon nga baax. mais nag peur du divorce ñu déconstruire ko xam ne divorce c'est pas une fin à soi. solution la solution la. solution la te yàlla suñu borom liñ naan divorce daf ko euh, euh, déclaré pare bañ ko existé wul ci benn xadis ay xadis la ñuy travailler defar ko construire ko teg ko fi yàlla bu fekkente dafa bañ dara du ko du ko daganaam yàlla lu mu bañ du am place kon le fait que c'est ça le fait que am possibilité am xadis yu wér yu koy confirmer mooy divorce solution la des fois am na ñoo xamante ni dañ naan waa su ma divorcé damay yàqu am na ci femmes yoo xamante ni bi ñu paree ci solu ci formation bi xam nañ ne l'unique solution fii pour ñu am dund gu normal mooy divorce. Mhm. te biñ ko defee gis nga traumatisme yi ñu ci doon xaar ak frustration yeeg métti yi au contraire dafa gën a oyof parce que xam nañ ni ndakate lii mooy solution te lii mooy may may jàmm xol. nga jël jàmm boobu xam ni ngay doxalee sa àddina parce que à la fin de la formation la femme en sort plus euh, dafay dafay woolu boppam dafay gëm boppam ah ah. day xam nan lay nan lay nan lay affronter situation surtout ça surtout et c'est ça le plus important c'est ça le mm-hmm. plus important donc jigéen ñi nañu bàyyi futilité yi ñuy def parce que yow tey jii mhm. ñun dañu am ay réalité yow tey jii boo bëggee dem jënd sa benn mbubb cent mille francs wala deux cent mille francs sol ko te yow amuloo esprit tranquille yaa ngi ci ay problème sotti de mais demal nga fay coach mu mu former la parce que yow li ngay def sa liggéey la sa formation la da ngeen jox les outils pour affronter la mhm. le monde pour affronter ñi nga xam ne ay ay pervers narcissique la ñu mhm. 80 pour cent des hommes sénégalais sont des pervers narcissiques. dañ leen di jox pour pour pour pour. sañ ko wax.